salaamaaleykum gars yi nuyu naa leen dal leen ak jàmm ci Sen Sport 221 Sadio Mané l'international sénégalais defati na jaloore tey jii foofu la ca Angleterre ci match bi nga xamante ni ñoom Liverpool amoon nañu ko seen diggante ak Leeds United te ñu dal di dóor nag ndam lu yaata juróom-benn bal la Liverpool dóor ñi nga xamante ne Leeds United. ki nga xamante ne mooy Sadio Mané l'international sénégalais daal di amal ab doublé ñaari bal la dugal tey ji voilà loolu may ko sax mu am lu toll ci fukki bal ak benn yoo xamante ne marqué na ko ci English Premier League bi 11 bi la am ci jamono bi. comme ni leen ko waxee match boobu 6 bi à 0 la ñii di Liverpool daal di dóor ñii di Leeds United Mohamed salaa moo amal doublé ak Sadio Mané waaye nag ñu fàttali leen ne Salah. ñaari bal yi mu dugal muy doublé bi mu amal yëpp ci ay penalty la ñaari penalty la benn bi sax Sadio Mané moo ki nga xamante ni moo ko waral voilà Sadio Mané moo am benn penalty bi kii di Salah daal di koy dugal kon moom ñaari doublé ñaari doublé yi xew ci match bi benn bi mooy bu Salah bi ak ñaari penalty Sadio Mané reyante dugal moom ñaari bal jamono loolu may ko mu am lu toll ci onze bi comme ni leen ko waxee moo nekk troisième meilleur buteur ci li nga xamante ne mooy classement bi tam foofu la ca English Premier League bi kon ki nga xamante ne mooy Salah moo jiitu ak 19 bi Diogo Jota moo ci topp ak douze bi Sadio Mané moo nekk ci ñetteelu place bi ak onze bi voilà onze bi yoo xamante ne amul benn leen Sadio na l'international sénégalais. ñaari mat yi weesu yëpp nag moom sa Mané du jouer comme attaquant de pointe gannaaw bi nga xam ne Liverpool amuñu ko ndax kii di Diogo Jota nekk fii Firmino nekk fii voilà deux matchs yi mu joué mu dal ci marqué trois bi mu nekk lu am. beneen jogante goo xam ne xaw xewoon na foofu la ci Angleterre ci benn côté neex na muy Crystal Palace dal di am ndam waaye nag ki nga xamante ni mooy Ismaïla Sarr ak Watford tey jii dañoo souffrir ndax kat dóor yu métti la leen Crystal Palace dal di dóor. Crystal Palace Modor Watford 4 bis à 1 muy ñent bal ci voilà ki nga Wilfred Zaha fofu tam mom moy ki doublé ci jongante gogulé match Liverpool mon bi mu nga Burnley Tottenham 1-0 voilà waaye li ñu seetlu tey mooy Liverpool gannaaw bi mu dooree Leeds United dafa daal di am ñetti poñ ci ginnaaw Manchester City trois points képp moo leen séparé jamono bi xam nga Manchester City moo nekk ci topp li nga xamante ne mooy table bi foofu la ci English Premier League bi moo nekk ci bopp classement bi voilà Liverpool nag ñetti poñ képp moo tee mu jot ñi nga xamante ñoo di Manchester City. yeneen match yoo xamante ne xewoon na ci ngoonu tey jii muy UEFA Champions League tey jii nag ñaari match yi nga xamante ne amoon na benn ndam amu ci ñaar yëpp dañoo dal di témboo maanaam. the material voilà Atlético de Madrid ak Manchester United ñoo doon joué tey jii ci li nga xamante ni mooy benn huitième de finale bi mu nekk ñaari équipe yoo xamante lu ëpp fanweeri at ngi ne dajewuñu ci li nga xamante mooy Ligue des Champions gëj nañu joué depuis 1991 la Atlético gën a gëj a Manchester United tey jii nag dal dinañuy joué Atlético moo jiit woon benn bal ci dara premier mi-temps bi sax mën nañu wax ne moo dominé Manchester United waaye nag mooy Elanga Elanga moo dal di ñëw égaliser ci match boobu un partout la jogante googu jeexee beneen match bi doxoon diggante diggante Benfica ak ñii di waa Ajax foofu deux partout la ki nga xamante ne mooy Sébastien Haller moom nag jamono yi daal di bindaat li nga xamante ne mooy histoire ndax gannaaw bi mu dugalee ñaari bal ci jongante gi la ndax dafa dugal benn bal contre son camp muy ñii di waa Ajax waaye nag teguñ ci lu mooy ñetti minutes jàpp ñeenti rek moom kii di Haller dal di marqué waat beneen bal pour ñii di waa Ajax kon moom jamono li ñu seetlu mooy marqué na lu toll ci li nga xamante mooy Ligue des champions ren bile mu nekk njëlbéen yoon nag ci histoire amul benn dégg nga maam fukki bal ak benn ci benn saison Ligue des champions kii di Haller def na ko beneen record boo xam ne def na ko mooy may njël benn joueur ci histoire Ligue des boo xamante ni dégg nga juróom-ñett juróom-ñaari match yi mu njëkk a dafa dal di marqué Sébastien Haller sept match yi mu njëkk a ci Ligue des champions ci dundam yëpp bu ci nekk dafa dal di marqué loolu amul kenn ku ko mos def Haller def na ko kon tey ji ñaari yoon la bind histoire am ci li nga xamante ne muy lii di UEFA Champions League ci championship bu Angleterre foofu itam am na ku koy toj muy ki nga xamante ni mooy Mitrovic Alexandre Mitrovic moom nag kayiti xibaar dañoo fesal jamono yi dafa daal di marqué 32 bii ci saison ren bile maanaam saison bii nga xamante ni des na fukki jongante ak ñeent foofu la ca championship muy deuxième division bu Angleterre des na fukki jongante ak ñeent waaye ki nga xamante ne mooy Alexandre Mitrovic moom jamono yi ñuy waxe ak yéen marke gum na fanweeri bal ak ñaar te saison bi demagul fenn lii nag amul ku ko mas a def ci njëlbeen voilà njëlbeen yoon la bokk foofu nga xamante ne mooy ci championship bu Angleterre commentaire ki nga xamante moom Mitrovic moo ko def 32 bi la marqué te saison bi jeexagul sax foofu la ca championship bu Angleterre Paulo Dybala Paulo Dybala kay di xibaar nañu fessel ne mën na dem Barcelone ndax moom contrat ak Juventus daanaka jeex na kat saison bii bu jeexee te prolongé wul dégg maam day dal di tàqale ko waa Juve kay di xibaar fessel nañ ne Juventus nag jamono yi ni nga xamante noonu la Paris toppee Mbappé di ko neexal ngir mu yokk contrat am noonu la ki nga xamante ne Paulo Dybala pexe yu ñu koy def ngir mu prolongé waaye ba fii ñuy waxee dégg dara xewagul kay di xibaar ñu ngi fessel ne Paulo Dybala jamono yi li mu bàyyi xel mooy saison bi bu jeexee mu dal di dem fi nga xamante mooy FC Barcelone moom daa Barcelone mooy foo xamante mën na fa mujjee ji bu saison bi jeexee ndax prolongé gul ba fii ñuy waxee ak yéen comme ni ñu leen ko waxee El Clasico bi war a dox diggante Barcelone ak Real Madrid muy retour bi kayiti xibaar yi fësal nañu ne jamono xam nañu date bi ak heure bi ñu war a joué lay doon 20 mars waaye nag ci li nga xamante ne mooy 20 heures ci guddi 20 heures GMT muy bu juróom-ñetti waxtu jotee ci la ñuy joué li nga xamante ne mooy El Clasico boobu la dimanche lay tombeel ñaar fukki fan ci weeru maanaam mën nañu wax ne fileeg ñetti semaine jàpp ñeenti ci kanam ci la ñuy joué El boobu boobule. ki nga xamante ni nag moom la ñuy wax Nkunku Nkunku Manchester United dañu koo bëgg moom nag nekk na ko xam ne joueur dégg nga maam international français la Christopher Nkunku Nkunku ne mooy ci Red Bull Leipzig kayit di xibaar fesal nañu ne Manchester United ngir mu jot ci foog mu bay fay lu toll ci 62 millions pounds ci xaalisu Angleterre la maanaam 62 millions de loo xamante ni moom la Manchester war a fay war a mën a jot ki nga xamante ne mooy Christopher Nkunku Nkunku nekk foofu nga xamante ne mooy ci Red bu Leipzig di def nag saison bu doy waar foofu la ca euh, Allemagne voilà ki nga xamante ni mooy David De David De moom bii mooy njëlbeen yoon mu jënoo ak Atlético de Madrid gannaaw boo xamante na fa depuis xam nga David De Gea Atlético la jóge woon dem Manchester United fukki at ak benn boobaak léegi voilà daje na ak li nga xamante ne mooy ancien club ci matchu tey bile Ousmane Dembélé mën na prolonger ak ñii di waa Barcelone kii di nag li ñu fësal mooy ñi nga xamante ñoo di Barcelone ubbi nañu buntu a yokk contrat am de waaye ñoom du xaar voilà moom Ousmane ki nga xamanteni nak moy savi mom dafa wax ne mom ku bëgg Ousmane Dembélé nee Ousmane Dembélé dal daf ko neex trop ndax joueur la bo xamanteni même bu fekkente ne ko koon ci match yi la wessu manam ki nga xamanteni moy Ousmane Dembélé wane ne mom professionnel la ku yaru la ndax kat li nga xamanteni mo waral sax mom mu bëgg di jouer le Ousmane Dembélé jamono bi moy li nga xamanteni wane nako ci walum professionnalisme ndax bu fekkonte won nee na wane won na lenen lu wane ak ñak lu niro ak ñak yar mu ne ko non légui lenen lañuy wax ko non manam mom danaka sax dodul faale ki nga xamanteni moy Ousmane Dembélé way li nga xamanteni wane nako ko gannaaw bi nga xam xamante daf koon zappe woowul ko ci ay jongante Ousmane Dembélé wane na loo xamante ni daal moom daal daf ko dal di dégg am yéem moom saa bi loolu war na ba nee na moom ku bëgg Ousmane Dembélé ndax wane na dëgg de moom daal ab professionnel dëgg la ñaari joueur marocain yi nga xamante ne dañ leen tegoon ay daan ci kaan bii ñu weesu ci match boo xamante ne moom la Maroc mujjee joué seen diggante ak Égypte nga xamante ni ki nga xamante ne mooy Sofiane Boufal ci la bokkoon sax moom dégg nga euh, ñoom ñaari joueur la woon foofu la ca Maroc ñoom ñaar ñëpp kay di xibaar fesal nañu ne dinañu mën a joué ci match boo xamante ni war na dox diggante Maroc ak RD Congo te mu aju ci barrage li nga xamante mooy coupe du monde bi nee nañu daal li nga xamante ne mooy suspension boobu ñu tegoon seen kaw dal dinañu koy teggi lii nag kenn xamul nu mu demee nii voilà ndax boobaak léegi Maroc joué wu fi ay match te gisuñu benn raison bu war a tax ñu teggi li nga xamante ne mooy daan yi en mën a xew mooy ñaari joueurs yëpp dinañu jouer ci li nga xamante ne mooy barrage yooyu ki nga xamante ni nag mooy Sofiane Bofal di seen star bi ci la bokk